je suis très nuancé bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene <laughs> décret di fal <laughs> parce boobu fasatuma yéene waxuma <laughs> puisque damay bàyyi xel dogalu yàlla